أنواع الحديث باعتبار من يضاف إليه yoo xam ne ñett la xadis bi xaaj yi ñu koy xaaj bu ñu xoolee ci koy askan la ñetti xaaj yi ñett ñett yooyu ñoo yem المرفوع تنجو أسكن المرفوع والموقوف والموقوف وال والمنقطع وال والمتصل مقطوع مقطوع المرفوع والموقوف والمقطوع buñ xoolee nag ndax اتصال امنا ولا اموت اتصال سنه ittisaalu ولا am na wala amut moom xam na yuñ ci jël tur tur yu boole yëpp yëpp bu fekkee ittisaal bu ittisaal amee moom la ñu bu ittisaal amee amee moom la ñu tuddee bu ittisaal amee انباع الحديث باعتبار اتصال السند وعدمه واتصال امر ما متصل واتصال امر ما منقطع منقطع منقطع ما تروي امبو lépp lu amul itisal rek ak fu fu ñàkk itisal gi mën a amee ci moo hmm. xam ci njëlbeen gi la wala ci biir la wala ci mujj la hmm. moo xam ci benn béréb la wala béréb yu wuute moo xam kenn rek rek dikkul wala na kenn bu ëppee kenn moom fata hmm. bu ëppee kenn teñ sosaloo nuñ koy tudde bu inqataa bi ëppee kenn teñ sosaloo manque suñ sal bon daal mooy fekkee sanad bi ñaari bu kenn manqué na ci tëñ sësaloo <laughs> ci biir munqati am na luñ ci am na luñ ci doon tudde munqati xafi xafi munqati moo xam ne inqita bi dafa nekk xafi xesul noonu lu koy waral luy tax munqati di nekk xafi doom façon bi ñu lan la koy nekk gis muy koo xam ne maanaam bokk nañ jamono waaye day gone ba dañ ko jël ci moom comme nit ñi maanaam comme ku mel ne man mii nga xam ne fekk naa si ñëw dimanche ñoom ko àddoo la yor waaw waaye nag sama sama at ñëw moom ne riwaayoo ci nag ndax loolu la waaw incha allah Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ah ku déggewu ko ci moom ku bokk ak nit jamono ba noppi askanale ko dara te déggewu ko ci moom déggewu ko ci yow mi boo boo ma askanale woon dara te déggewu ko ci man mun xasan xas yi lay doon mm-hmm. li tax muy xat mooy li bopp jamono mm-hmm. mooy tax boo nee nee naa rek da nga doon ko doy jàpp na koo jéggi ci man mm-hmm. lu yow ak suñu xam na ni bokk leen jamono moom mm-hmm. daje ngeen bokk leen jamono léegi nag toll mën a jël waxam kon jàpp ni bokk jamono loolu dina xas yi waaye ñaar ñoom bokk jamono mën naa am sax fekk na nga jëlee ci man sax yu bari hmm. boo xam si man nga ko dégg waaye am nag loo xam ne déggoo ko ci man ba noppi ne nee naa hmm. wala man dañ koy tuddee am na turu bopp lañ koy tudde mooy mu dallas hmm. noonu dañ koy tudde mu dallas mu dallas tatlis ku nettali ku nettale ku nettali lu kum jamononteel te fekk nag déggewu ko ci moom tam jëfandikoo baat boo xam ne it waxul ne dégg naa ci moom dana nee na rek sikri nee na rek nee na newut nee na ma waaye dana nee hmm. mursal dañ ko jëloon ngir dellusiwaat garal hmm. ko bindu boppam hmm. moom it buñ nee mun xatia mooy saa bu ittisaalu sanat amul rek mun xatia la kon mursal day dugg ci biir mun xatia waaye am na ñoo xam ne nag dañ ko ber moom am na ñoo xam ne man xotaan dañ naan mooy lu ñàkk ittisaal te ittisaal te te ñàkk ga nag nekkul ci saxaabi yi ci manque du saxaabi ci manque ne kon mursal ñoom dañ ko beral mu mel ne xeetu boppam la woo xam ne duggul ci biir man xotaan mm-hmm. lu ci mën di xew al mursal ni mu ko taarifi mooy ما رفع التابع مرسل ما رفع التابع مرسل وكيل كبيرهم لكن ذاك المستطيل شوف دي تعريف مرسل تعريف نكو تعريف دي جنة دي جاب أكبر تعريف بوكو جنة تعريف من ما رفع التابع مرسل دول ما تعريفي maa rafa taabiu lu ab taabii rafa rafa mooy askanale ko yonente bi askanale ko yonente bi yonente bi ko wax wala yonente bi ko def kon lu ab taabii askanale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mursal kon mooy ab taabii dana rek yonente bi nee na wala yonente bi def na nangam te moom muy taabii moom mi ko wax loolu mooy mursal وقيل كبيرهم من أمن ينا لا خمنا تابع كبير ما ما ما رفع تابع كبير تابع بمك بمك ما نا يوين تبينا نقول إن تبينا نقول كنت تعرف مج بابو بدأ تابع بناو بوخه يس بوخه نيوين تبينا نقول كيف نبين تجاب تبين تبين مسلم من هناك لكن ذاك waaye bële bële mooy taarif bi njëkk a tudd hmm. xam rek maarafa taabia hmm. moo xam mag la moo xam donal hmm. al mustatil mooy li gën a dëgër li siiw kon li gën a dëgër mooy ne rek mursal mooy lu ab taabia yi askanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam taabia bu mag la moo xam taabia muy wax nag taabiya bu mag mooy kan summa alkabiru inda di najaba aktaru ma yarwi an sahaba taabiyan kabir nag mooy taabiyan boo xam ne li ëpp li ëpp ci lim xam-xamam ci saxaab saxaaba yi la li ëpp ci li muy nettali ci saxaaba yi la ko jële mën naa ci taabiyan waaye li ëpp ci xam-xamam ci saxaaba yi la ndax niñ ko xamee rek lu ci ëpp maas maas ku ne li ci ëpp ci seen xam-xam li li baaxoo am mooy ci maas gi leen ko kaw la ñuy jàng ñu leen di hmm. jàngal hmm. baaxoo am mooy ma jàngal ku mag li ci ëpp hmm. te léeg-léeg jàngal ko mag gën a moom mooy eh, nit di jàng ci ci ko mag moo tax kon taabiyan yi bu mag mooy taabiyan bi nga xam ne li ëpp ci ay nettalam ci saxaaba yi la ko jële umal kabir ande bin najaaba aktaru ma yarju an saxaaba di ëpp ci li muy nettali ci saxaaba yi la koy jële taabi am bu demee noonu dañuy tuddee bu mag mag ci ñoom noonu lay demee xëy taabi am yu ndaw yi ñoom man ñoo jële ci taabi yu leen mag waaye taabi yu mag yi nag saxaaba yi ñoo mag hmm. moo tax lépp seen kon dama mooy taariful mursal ak taarif liñ jublu ci al tabiru kabir mu ñëw nag ci xukmul amal bil mursal xukmul amali bihi wala xukmul ixtijaaj bihi mooy ak atteem dal واحتج مالك به وأحمد كذا أبو حنيفة المؤيد من نيت ني dañuy ihtijaaj ci mursal moo dañ ci sukkandiku al malik al ahmad ibn hanbal ak al imam abu hanifa bu dee ahmad nag dañuy wax ne <coughs> nettali nettali nañ ci moom ne dana ci ixtijaaj nettali ci moom ne du ci ixtijaaj waaye nag nettali bi wane dana ci ixtijaaj moo gën a siiw moo gën a dëgër moo mu limaale ko ci ixtijaaj <coughs> kon ñett ñi ñoom dañ ci ixtijaaj mooy dañ ciy sukkandiku dañ ciy sukkandiku ci lu dul sart ñi ciy sukkandiku te wutuluñ ko sart dañuy dañuy wax ne ab taabiin yi bu nekk siqa ku nekk siqa ku mën doon rek seen xalaat ñoom ku nekk siqa daal bu nettalee te tuddul kam jële rek daa fekk mu xam ne kam jële day ko doy Hmm. daa fekk mu xam ne kam jële day ko hmm. moo tax mu bañ koo tudd hmm. kon ci loolu lañ si kon di ko rafet ñott kon ne kon bu octavian yi irsaale daa fekk mu xam ne kam jële day ko doy moo tax mu bañ koo tudd te it li ëpp ci taabian yi itam seen xam-xam ñu ngi ko jël ci saxaaba yi te saxaaba yi moom buñ xasee xam ne ab saxaab yi moo manqué rek dañ cee dañ cee sukkandiku ndax li ñuy wax mooy as-sahabat kulluhum udul hmm. kulluhum udul kon ñu tudd ko buñ ko tudd ñooyam daanaka hmm. moo tax ñoom ñu rafet njort ci jàpp ne daal taabiyoon yi li ëpp ci seen xam-xam ci saxaaba yi lañ ko jële hmm. te boroom xam-xam bu le ay wax te waxul kam ko jële daal fekk mu xam ne ko doyal loolu ak ak étoo la daal Mm. muy andi kon kon mm. sart bu njëkk bi mooy ne dañ ciy sukkandiku ci lu dul benn sart mm-hmm. ñett ñooñu mm-hmm. fa lañ nekk mm-hmm. am na ñoo xam nag daa wutal lañ koy sart ngir mën cee sukkandiku bokk na ci ñuy wax ne wa qila in yakun min ahli naqli mursiluhu li xifzihi lil adli waxeef na ne bu ñuy sukkandiku ci mursal mooy bu fekkee ki ko irsaal mursiluhu ma ki ko irsaal mooy taabiyaan bi wax bi ko askanal yonent bi sallallahu alayhi wasallam hmm. bu fekkee dafa bokk mooy daa bokk ci ñu yittewoo xadis ak di ko tuxal hmm. bu bokkee ca ñooña moom hmm. ci lañ ci la ñuy sukkandiku ci bu irsaale ndax moom li xifzihi lil adli ndax moom xam na ñi doy ndax moom daa yittewoo xadis di ko toppatoo di ko tuxal di mën a xam ñi doy ñi nett li ñi doy ak ñi doyut kon bu tuddul moom comme jële mën nañu jàpp ne daal am na keneen koo xam ne nag doonul ku giseem demee noonu ci xadis bu nettalee te waxul comme jële mën a jàpp ne daa xam ne doy na ndax moom bokkul ci waa xadis yi xam ku doy ku doyut bu bokkee ci ñi xam ku doy ku doyut nag bu waxul comme jële ñu jàpp ne daa xam ne doy na moo tax kon ñu beneen taarif la boo xam ne moo gën a moo gën a ba léegi gën a ubbiku bu njëkk ba gën a ubbiku amul tënk bii nag am na tënk ci bii nag laakinahu adaafu mimma usnida li xafsihi lil ngir ngir wattu gi wattu moom ñi hmm. doy xam na ñu doy xam na ñu doy tax na boom bu waxul fi mu jëlee séntu ne daa xam ne doy na moo tax lakin naw adaafu bi ma usnida waaye ñi ko nangul ci sart bi teewul ñu jàpp ne biñ isnaad ko ëpp doole hmm. biñ isnaad mooy bi sanad bi nekk muttasil bi nekkul mursal hmm. bi nekkul mursal ko ëpp doole moom mursal daal moom moom mursal ko ëpp doole ki ko nangu nii ki ko nangu ci sart bi moo moo ne nangu lañ ko sart bi waaye nag mursal ak mursal ak la reer mursal ñu wax loolu bokk na ci bokk na ci ñu wax loolu ñu wax ne bu fekkee ki ko irsaal dafa bokk ci ñu yittewoo xadiis xàmmee ña doy ak ñu doyut kon ko nangu waaye nag mooy féete suuf musnad musnad mooy muttasil ورده جمهورهم نتالو نتالو كرل باني ما جمهور جمهور العلماء من يوم ردوا المرسل نتالو بني مو خاصة نك مرسل رك نتالو بني لي تخت ñi dañu rafet ndor ci ne sabi on yi yépp sambe lañ jëlé tayit ku doy bu bu waxul kam jële dañuy jàpp ne daa xam ne ku doy la moo tax nee na bu fekkee daa fekk mu ci ñu yittewoo wàllu xadis ci lañu jàpp ne kon ku doy la moo tax tudd ko loolu lépp ak rafet njort ci biir waaye doonut doonut mën a dogu bu dee nag dañoo wax ne ginnaaw daal tudduñ tuddut fi ko jële te it mënuñoo dogu ne ci ab saxaabi la buñ ci mënoon dogo moom dañ naan waa wàññiwut dara waaye nag mënuñ ca dogu te it ci gëstu borom xam gëstu nañ ba fekk ne xam nañ bu wér ne taabiin dana jële ci morom ji te garanti bi saxaaba yi am yi amuñ ko saxaabat kullu mawdul jooj nga xam ne dañ ciy dëppoo wax ko ndax yàllaa leen yàllaa leen seeral boppam taabiin yi amuñ loolu hmm. te ginnaaw taabiin mën naa jële ci taabiin yi rek waxul kam jëlek mun naa doon taabiyan mhm. bu def taabiyan tax muñ kan la duñ xam doy na am doyut mhm. moo tax jumhur ne daal te buñ ko gëstu ba gëstu ko gis nañ nettali yoo xam ne taabiyan yi day jële ci moroomam mhm. boo ko jële ci moroomam ba mag juróom-ñaari taabiyan yi càllal ak jaar ci juróom-ñaar door ak ci saxaab yi léegi yow kii mujj kii bu bi nee na rek nga defal njot ni la jóge la ko jële te fekk jaar na ci juróom-ñaari door ak si moom juróom-ñaar ñi kenn ku ci nekk dañoo war a xam kan la ndax doy naam doyut bu ngeen xamul nag kon dañ mën a ci loolu bu doon kenn la it mën naa doon kenn rek ku mu tuddul waaye ginnaaw xamuñ ko duñ xam doy naam doyut jumhur ñoo ko waxuñ sukkandiku ba ne daal mursal daal lu ñu sukkandiku ndax ginnaaw waxul kum jëlee rek dëgg la mën naa doon saxaabi waaye mën na ko bañ a doon ginnaaw mën na ko bañ doon nag bu ko doonul تخم إمكان لدن حمد نعم دوير وأنا فيما ظن الغالب اليقين wax la wax lu di ko déedéet déedéet an yaqin léegi ko déedéet maanaam قواعد ولا ولا ولا اصول xam nga Yustafa de bisi ñu koy jàppal yaqin na tey am am suñ ko wax de xanaa yustafaad bil ilm rek waaye al al muzanni lay doon nag yaqin waaw dañ ko jëfandikoo wala waaw dañ ko jëfandikoo xam nga fii demul noonu fii fii daanaka du ginnaaw moom xam nañu ñaar yëpp am xam nañ ne taabiyan dana jële ci moroomam dana jële ci saxaabi ñaar yooyu dara gënu cee noot moroom ci ñaar yëpp am waxuñ sax ne dana jële ci taabiyan taabiyan mu jële ci saxaabi rek waaye dana jële ci taabiyan mu jëlewaat ci taabiyan mu jëlewaat ci taabiyan bu mat juróom-ñaar door ak ci saxaabi xam nga loolu lépp ginnaaw xam nañ loolu am na gis nañ ko ba gis ne loolu am na kon mooy dañ dañ mën a dañ mën a sukkandiku ci mm-hmm. ku waxul comme jële daal ndax xamuñ kan la hmm. ndax xam doy na wala doyut hmm. waaw tamit hmm. rek gisoo mooy li jumhur bi wax moom la ñu sukkandiku moo kon moom la waaw <coughs> donte mujj dem nañ ba am am xeetu woyofal gu ci am ci ay yuñ ko booleel yoo hmm. xam ne bu ci àndee xëy nañu mën caa sukkandiku hmm. dina ñëw ci kanam mu ne wa in yakun multazima istiqaati fa musnadun xukman bi laftiyaati wa in yakun muy mursil bi mursil ci ci irsaal hmm. taabia bi wax na yonte bi neen wala yonte bi wax def na nangam bu fekkee dafa doon koo xam ne ci istixaar rek lay jële xisma hmm. istixaar mooy ku saxoo istixaar rek hmm. mooy ci istixaar rek lay jële hmm. bu dee ku mel noonu koo xam ne loolu lañ xam ci moom nett yi nett te wax fam ko jële yëpp duñ ko xoolee dañu fekk ne ci istixaar la jële kooku moom bu fekkee dafa irsaalit musnad lañ ko jàppe xukman mooy xukmul muttasil la yor ndax ginnaaw fuñ mas a gisee mu tudd kam jële rek siqa kon bu tudd itam dañuy jàpp ne siqa hmm. euh, beneen bii muy bëgg a wax nag moom it muy nangu mursal ci ay sart boobu ku mel ne imaam Shaafi'i moo ko njëkk moo ko njëkk génne ñu war a ci ginnaaw bi وحيث مرسل الكبار ينتصر بما وهى فبالقبول مشتهر وحيث ينتصر مرسل الكبار بما وهى مرسل الكبار التابعين الاختيار ما يصصرك نحن مدار دمت لو بيتا مدار وحيث مرسل الكبار ينتصر وحيث ينتصر مرسل الكبار بما وها مرسل بو التابع بمك إرسال انتصر ما تقوى رك تقوى ما دقر لونا بفك دقر لونا بما وها لنك واهن ما لنك ضعيف ما مرتسل مرسل بو تابع كبير إرسال دبو ak leneen loo xam daif la fabilqabuli mustahir comme moom mursal bi daa nekk maqbul mooy lay ko dëgëral lay ko dëgëral day tax ñu man cee sukkandiku bu ñu leen boolee ñoom ñaar buñ boolee mursal bi ak la ko dëgëral dañu mën a sukkandikoon ca àtte bu ñu andi ndax la ko lam ko dëgëral tax waaye na fekk nag ka ko irsaal taabian kabir la nda dëgërloo itam leneen loo xam ne nekk na daxit ne moom ndax mursal daxit ne moom waaye nañ ko jànge ba ñuy wax li réew yi yooyu yëpp mooy hadis daa nekk daif ba noppi leneen man koo yëkkati ba mu gi nekk maqbul li réew yi fii itam noonu lay demee rek mursalul kibaar mooy hadis bi nga xam ne daanaka dégg naa moom ustaas bu fekkee dafa dëppoo dafa dëgërloo mooy dafa dëppoo rek leneen lu nekk baax leneen loolu da koy ñu ngi koy ñu ngi koy tudd yooyu mu wax ne bu dëppoog ñoom dañ koy nangu ka qawli saaxibin wa fialihi ka qawli saaxibin wa fialihi wa ma yaqulu laktaruuna mimman alima ka qawli saaxib lu mel ne waxi ab saxaabi mooy wax joo xam ne waxi waxi saxaabi la waxi boppam waxi boppam ab saxaabi bu wax dara te nekkul marfo nekkul fi xukmul marfo kon ñu ko xamaa kon mawquuf la bu waxam jooju dëppoo akub mursal da sukkandiku ca nga mursal ba indi ndax lay da ko dëgëral kaw lu saxaabi naka noonu fi'lu saxaabi itam mursal bi àtte bi mu indi xam nañ ne saxaabi sàngam jëfam loolu la dëppool ba tey dana ko dëgëral kon dañ mën koo nangu وما يقول الأكثرون ممن علم ما أكثر العلماء ما يقول دكو إذن وخي نفسي ورم قمقامي نفسي ورم قمقامي سان وخ سان فتوى دكو ناجلي مكتب بي وخ متأي سان دكو دجال دخي يامو يب لكي دارو رك نطول دليل نطول دليل مم مم كثير نطول دليل بودي فوق مرسل نجل ધીરે કરે લક્ષ્ય તમે પગાર બદલી أكرم ولا منش دارج الإسناد الإسناد والإرسال والقياس الإسناد والإرسال والقياس والانتشار عمل أساس إسناد ما يكون لوني إسناد ما يكون متصل وينك أم بنان ضعف متصل ويعمل ضعف وينك يوالو ضبط بيه ak irsaal mooy lu nekk beneen mursal kon yëpp lu ci dëppoo ak mursal rek danañ ko nangu mursal bi dëppoo ak musnad boo xam ne am na dance bu jene wala mu dëppoo ak beneen mursal wala mu dëppoo ak xiyaar dañ naan waxuñ xiyaar jëli ci la xiyaar jëli nga xam ne xiyaar bu saat yi ma sëkk la waxuñ boobu ndax xiyaar boobu dalil la ndax xiyaar ci àggul ci dalil moo tax ñu wax caasu maam kon daal du ci dalil ndax leeragut noonu waaye nag bu dëppoo ak mursal danañ nangu mursal al ah, intishaar mooy moo yi ñoo xam yaqul aktharuna mi man alimaati rek ñooy intishaar mooy mooy mu siiw te kenn diingatu ko ci borom xam-xam mu dëppoo wax wax bi siiw ci borom xam-xam te ko ko diingat ci seen waaye nag àggul ci ijma ndax wala ijma ba tey dalil doon yëpp benn ci àgg àgg ci ci nekk dalil ak amal amal dañ naan mooy amalu ahlil asr mooy boroom xam-xam jamono jamono ji moom lañuy jëfe seen jëf seen jëf jëf dëppoog moom ba tey danañ nangu mursal kon mooy mursal daal Fabien bu mag moo ko nettali te mu dëppoog lenn ci yi kon danañ ko nangu loolu beneen xalaat la boo xam ne imam Safin moo ko njëkke seneen ñu bari topp ko ci gis mel ni moom bu am doll la ñëw li ngay wax mi nga aju ci léegi rek asaasu asaasu bi mooy mooy mooy xabaru li jiitu ci léegi yëpp lisnaad wal irsaal wal qiyaasu wal intisaaru amalun ولات منتظرة لتعرف من الخبر نسمع مع المنصري يجلس أي معطوف أتعرف من الخبر عمل الجيم حذف في عاطف ما هو عمل الانتشار هو عمل حذف عاطف juróom yëpp lay wax ne asaas na asaas mooy lu mursal di dëgër loolu మనం మసాల దాల్ ipakita po ng musnat. Thank you. Thank you. Musnat Bambang. Bambang. Thank you ng ito po irsal. Ganun, ganun irsal. Thank you ng ito po ganun kiyas. Kapil. Ito po intishar manam siw siw. Yari kumiyari dahil. Thank you. جفت جفت درهم خمسة من زمان لكن أمر مرسل الأصحاب طب تعرف مو لأنهم تابعين تابعين موقع في السال وأمر مرسل الأصحاب مرسل الصحابة مراسل الصحابة مرسل الأصحاب كل متصل من مرسل صحابي مم xukm muttasil mooy li doon wax léegi nii. su diggante ak Mawal Mawu. su mooy mooy mooy saxaaba yi nga xam ne dañoo doon ñu ndaw. su hmm. diggante bi nag loolu la ñu xam ne ñooñu su diggante bi nee na wax na mu tàll ndax xam nañu ne ci moom direction الحكم متصل لإجابته نخ نعم. غالبا عن الصحابي يحصل نخلي إرسال الصحابي من كي رجبنا ربنا في مجمع منا فجسمنا بعد تجنو لن منون فرمي أحداث الصحابة الصحابة محمد أنه لجمع bu ñu yonent bi naan wala waxam na nangam mursal doon waaye nag lañ koy jàpp ndax ci saxaabi lañuy jële waaye teewul loolu am na ko ñoom abu isxaaq al isfara yi ni moom nanguwul loolu moom itam ndax moom boo tënkoo ci boo tënkoo ci ci xawaan bi rek ba tey moom it day wax la kom la nga waxoon ci faabiyan bu ëstaale rek dañ naan li gën a bari bu nekk buñ li gën a bari rek mooy lu néew néew kon sofaan bi am na dañu ko xaaliban la wax ko xaaliban ani sahaabi yaxtul li gën a bari ci sahaabi yi lay jële ginnaaw lu bari la kon am na lu néew lu am leneen lu am leneen mooy sahaabi yi dana jële ci tudd sahaabi yi mooy sahaaru sahaabi yi am na ci jële ci saaru saxaaba yi am nañu jële ci ay taabi'un moo tax isra yi ñu moom ba tey mu ne mursalu mursalu saxaaba moom mursal yëpp am rek ndax saxaaba yi boo xam ne xam nañu jële ci yonent bi bu ne yonent bi nee na xam fu mu jële mën naa jële ci saxaaba yi mën naa jële ci keneen hmm. ci am na benn benn yu xam ci ne ñoom daanañ jële ci ay taabi ku dul saxaaba yi hmm. kon mursal xam ne taabi'ay moo ko askanale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. imam Malik Abu Hanifa ak imam Ahmad ibn Hanbal ci benn ci ñaar waaye jël yi ak ñu ko askanale ñoom dañ koy nangu ci lu sat ñu koy jàpp ne ci xam bu nettalee te waxul fa mu jëlee daal fekk mu xam ne fam jële ci doyal am ñu ne na fekk mu doon ci yittewoo xadis kooku mooy xam ne daal ñu doy waaye li jumhur wax nag ñoom ci jumhur la wax moom mooy mu tëddaal duñu sëli duñu sëli ndax luñ ci mën di wax it waxul kam jële te kam jële mën naa doon saxaabi mën na ko may doon mën na ko jàppe ku doy loolu meneen mbir la mooy bu doon ne sax moom daa jàpp da ko jàppe ko doy jàppe ko ko doy taxul mu doy mën na ko jàppe ko doy te boo xam kan la mën na caam ku ca xam ak doy de mën naa am ku ca xam ak doy moo tax ñu bëgg nit ñi waxtaan ci mbir donc jàpp na ne ku doy day na ko wax ndax moom moo ko jàpp ku doy waaye mën naa am bu ko waxoon am keneen ku ca xam ak doy de beneen xalaat bi nag mooy bu fekkee saxaab yi bu mag moo irtaal te am lu mu dëgërloo danañ ko mën a man ñu dëgërloo nag ñu bari lu ñu mën bokk na ci xawlu saxaab yi fi'lu saxaab yi ak xawlu ak seen ulama ak musnad bu nekk daif beneen mursal ak xiyaas ak amal anil am كده برضه بدأ صغار صغار الصحابة نك ولا أحداث الصحابة كان مرسل جات متصل ما في في في في في في ما كمان يسرع عندنا ما بس كده متصل لخمون نوم آه. ఓకే లైక్ మనకు ఫిర్వార్ మీరు ధ్యాన్ करती हैं तो क्या नाम ला ما رفع التابع